salaamu aleykum rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu waat bu baax a baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam man la Mama Daba maay duggaat di joxe sama modeste contribution ci li sama doom ji indi tey ci biir ëtt bi waaw muy nekk lu doy waar ma bëgg a wax tuuti rek ak góor ñi ndaxte am na góor ñoo xam ne ñu ngi teg seen jabar fitna yoo xam ne nañu xalaat ne dee dekki am na de nañu xalaat ne dee dekki am na te takk euh, euh, autorisation bi leen yàlla may pour ñu mun a denc ñeenti jabar loolu ça ne leur droit ça ne leur donne pas le droit de faire ce qu'ils veulent dañ leen ne bés bu ñu demee ba gis keneen ku ñu bëgg nañ ko labat indi ko et que ça se fasse dans les règles de l'art mais lii ñuy def nii ak fitna yi ñuy teg jigéen ñi ëpp na am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci seeni biir kër di sëy ay jéego rek la ñuy mottali ci àddina mais ba ñu dee yàgg na ba seen xol daggee yàgg na bañ leen reyee du tey te leen ko teg góor parce que dem ba di indi jigéen ci sa biir këru jabar kooku moom honnêtement c'est le comble te jaaduwul te du dëgg du yoon l'islam diglew ko yoon diglew ko kenn diglew ko góor ñi nañ xool seen digganteeg yàlla newu ma jigéen ñu jub nañu à 100 pour cent de mais am na jigéen góor ñoo xam ne ñoom itamit tamit billaahi dee moo leen teree dem safara parce que dafa am loo xam ne fii fitna goo xam ne ku koy teg doomu aadama dagg nga xolam dee na dafa dese ay jéego ci àddina rek mais ba ko reyee du tey ndax yow déjà ngay indi ay jigéen sa biir kër ñu ne joojoo nga ne euh, duma la jox dépense mais kon yow sëy boobu ban sens la am et puis tamit la question que je me pose mooy ndaw si dëgg la dañu naan sëyal sëyal sëyal mais ana ñu ko maye woon ana parents yi ku góor ki mais nañu wax ak ñooñu parce que sëy dafa am yoon yàlla dafa wax lu mu am dafa am lu mu wax ci sëy lislaam dafa wax lu mu am ci sëy dafa am lu mu wax ci sëy mais di indi ay jigéen ba sa biir kër di kokkali sa jabar di ko ñaawal kooku moom bokkul ci benn diine bokkul ci dara te man mënuma ko cautionner moo tax quand critique euh, les séries et autres là buñ ko critiquer parce que ce qu'il faut tout haut y a des gens qui tout bas li ñuy génne nii ñëpp di ko dégg ñu naan nangam c'est de la fiction c'est pas de la fiction ci kër yi lañ ko gisee ci kër yi lañ ko déggee ba tax ñu mun ko génne xëj na am na loo xam ne war nañ ko améliorer ci série yi loolu taxu ñoo jóg parce que waxuñu ci série yi mais lii ñu waxee ci série yi dafa am parce que mënuñu fi wax loo xam ne gisuñu ko ci àddina bi gisuñu ko ci nit ñi gisuñu ko ci kër bi góor ji nañu gëmaat yàlla nañu seetaat seen digganteeg yàlla xam ne dee dekki am na de dee dekki billaahi am na te ku foog ne rek après la mort c'est le ba tax lu la neex def continuer rek jigéen ñi dee nañu dañoo yeggagul mais billaahi seen xol kettatu na ba jeex koo ci gis benn branche ko dese boo ko ba ma xee sax mu daanu dee góor ñi nañ xool seen digganteeg yàlla li metti na man dafa am loo xam ne léegi dama ko contre surtout ci jamono ji ñuy dund actuellement dafa mel ni saytaane dafa dugg ci biir nit ñi moo tax couple bi fi nekk di xeex di reyante nañ ci jéem a jóg parce que da ngay jékki-jékki jam na jëkkër ja dee na soo daña jëkkër ja dee na jëkkër ja rey na ko moom rek lay mujjee parce que xol du oom ba ñu di ko bës c'est pas une raison mais jigéen dem na ba jam jëkkëram mu dee ndax xol bu jeex jëkkër dem na ba jam jabaram mu dee ndax xol bu jeex kon il est que ces genres de mariage la na ci nit ñi jóg na ci parents yi di wax nit ñi nañu bàyyi seetaan muñal muñal muñal ba lan sëy muñ boo xam ne yow lii munoo ci am sax doom ju ba dans ces conditions là góor goo xam ne boo génnee mu indi nit boo mu indi nit de quel droit loolu amu ci benn droit te daw si mënoon na ñëw xeex ak beneen jigéen ba fa ne sax rayante am fa te bu boobaa l'homme est le seul responsable parents yi toog di seetaan parent yi nañu def pour sëy naratee am yenn problème yi nañ jóg régler ko à temps kenn bëggul tas mais sëy dagan na fase dagan na nee nañu dee kenn buggu ko mais ku rëdd dëkk di nga rëdd armeel parce que dee day am kon nag bu ñu bañ sëy bu tas bu union amee des désunion day am sëy bu naree indi jàmmaarloo bu naree indi musiba nañ ko tas purement et simplement je m'en la là parce que vraiment j'ai le cœur très serré parce que kii lu muy dund metti na ay parent war nañ ci jóg parce que ñoo ko war a mun a régler ou bien moom ci boppam elle n'a qu'à prendre ses dispositions góor ñi nañu réglé waat góor ñi dagg nañu xolu jigéen ñi jigéen ñi dee nañu yàgg na billaay dañuy dox rek mais koo ci ba wax mu daanu dee parce que xolab kettatu na ba jeex góor ñi nañ seet seen digganteeg yàlla dee dekki am na dee dekki am na te après la mort c'est pas le néant tu auras des comptes à rendre waaw ma leen di euh, jaajëfal yéen ñëpp ku ma ci heurté conscience am aussi je m'en excuse xol laa waxee moo tax parce que lii dafa metti et en tant que maman je ne pouvais pas parler